إلهي يا إلهي إلهي إلهي توبة قبل المنون أمر مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي موضن إلهي توبة قبل المنون منوننا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون أمام إلهي إلهي توبة قبل المنون ما مودنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون أمر إلهي المولى مالكنا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل المنون من مولانا ألا يا أعداء عدو ويأتنا بإيني بإيني ما لنا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي توبة قبل المنون googu dafa wax ne mi ngi sant mi ngi sant yàlla cant goo xam ne amul fu mu tàmbale amul fu mu yem yàlla ko waxal boppam. nee na yàlla moo ko waxal boppam. lillahi na lépp ya mbir mi ko moom. lu jëkk ak li ñëw ci ginnaaw yëpp yàllaa ko moom. nee na nag dara nekkul ci gannaaw la ca ginnaaw lu dul yàlla. la jiitu la ko jiitu dara nekku fa lu dul yàlla. moom mooy ki nga xam ne moo wéet ci jëmbam ji moom yàlla. qadarihi nee na ak dogalam ak ak yëpp ak yërmandeem ji xam ne xajoon na lépp comme ni ko waxee ci téeram bu tedd bi nee na yërmande yàlla xajoon na lu lépp lu mën a doon waaye yàlla nee na nag ñama ko dencal mooy ñi nga xam ne dañuy teet li yàlla tere di def li mu santaane yàlla ci yàlla boole ñi nga xam ne dañoo sellal di daw dellu ci yàlla waxtu wu nekk أحييكم جميعا نانا ميغلين دي نيو مبوك يو تادي في تيو ييب ميغلين دي نيو وهذه تحية مندرجة في كل فرد منا نانا نيو لا بو خامتاني بي كيب كوم مالا دون سي دون سي نيون دوجو سي بير يعني لأنكم تمثلون هذه الجماعة التي تشرفني باستقلالي في هذا العمل الجليل نانا نخ ليكو وارال موي دا بوك سي كورل بو خامني ييرا دون سايتو ليغي بي nee na ñëw na tey di ko tatagal pour mu ñëw gis xoolu fi liggéey bi toll. nee na mi ngi suñu borom subhaanahu wa taala yàlla yàlla guddal yàlla yàlla dolli barkeel nee na yàlla yàlla dolli barke nee na ci ki nga xam ne mooy xalifa maamam di suñu sëriñ سيد ابو بكر محمد المنصور مودي سيرين بابكر سي محمد المنصور الكلي نينا سيد بابكر محمد المنصور موي لبم موي سيرينم رفيقي نانا موي أندنوم الذي اسير وراءه نانا موي أندنوم بيغا خامني سي غيناوم رك لا توب الى الله تعالى ني اند دوخ جيم سي يالا الله هو الله نانا ني خامني يالا موي يالا ما كان احد ينتبه او يتفكر او يفكر نينا امول وم كين كو خامي ميغي دون خار ولا موي خلات ما بغا خامي شيخ الخليفه مو ديون جمعه جي ديك جي ياسو غنا غايم غنا بغا خامي شيخ الخليفه سيغ بابكر سي موي موي ياسو لون ليغي جمعه جي غنا وي جورم مام شيخ الحاج مالك انت جوغي سانتانتي اك العزيز من المؤمنين nee na ba mu fi jógee moom sëriñ Babacar si ànd ak rakkam ja cheikhul qawmi cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour si mooy sama sëriñ nee na mooy sëriñam radiyallahu anhum jamian kenn xalaatul woon ne kenn xalaatul woon ne gannaaw ba ko bàyyam Abdoul Aziz bàyyam Habib jëlee di ko liggéeyaat gannaaw ba ko bàyyam cheikh alxaaji Abdoul Aziz doon liggéeyaat moo ko rakkam cheikh alxaaji Mouhamadul Habib bi alxaaji Mouhamadul Mansour ne ne woon Cheikh ne xalaatuñu woon ne Cheikh alxaaji Mansour Malick mooy mottali jumaa ji. nee na nekkul lu tuuti de. nee na Serigne Mbaye mooy alxaaji Mansour. nee na mi koy giñ ci yàlla. nee na moom xam na ci dara. nee na magam la soppeem la xaritam la sëriñam la. nee na démb ci ngoon rek biñ fa demee. mu bëgge nee na ni sëriñ bi bëggee ni mu kontaane man dama nekk ndaw nee na moom dafa nekk tout tànk rek Baye Alhaji Abdou jox ma sëriñ Cheikh Tidiane si Baye Alhaji Abdoul Aziz si jox ko sëriñ Cheikh Tidiane si almaktuum mu jàngal mu jàngal ko sëriñ Cheikh nga dal sama kër Pape Khalifa ca Rivière nee na sëriñ Cheikh mi ngi doon dal ci kër Pape Khalifa ca Rivière comme Pape Habib mu nga nekk huitière ci conseil. nee na papa ba Xaji Mouhamadul Habib mi ngi nekkoon huitière moom itam. yàlla dogal. yàlla dogal. Serigne Cheikh. Serigne Cheikh. indi ma Tiwaawan. indi ko Tiwaawan. yàggul. yàggul. mu ne Baye Malick dafa wéradi. mu ne Baye Malick dafa wéradi. am na kuñ daan wax docteur Issa Diop. am na kuñ daan wax docteur Issa Diop. mu nekkoon la daan teg. moo nekkoon la daan teg hôpital. Serigne Cheikh delloo si ma na Cheikh delloo si ko Dakar. son papa na ne ko papa kat Baye Malick dafa wéradi. dama ko bëgg a bàyyi ci sama papa Cheikh Ndiaye maa béy. dama ko bëgg béy. ndax kat ndax kat. Serigne Mbaye Mansour nekk. Serigne Mbaye Mansour su ko tegee ci loxoom. te amaana moo su ko tegee ci loxoom. moom Serigne Mbaye Mansour. moom Serigne Mbaye Mansour. dana man ci suñu rakk ji lu ma mënul ci suñu rakk ji lu ma moom man Cheikh. xoolal xoolal ànd bu rafet. nee ànd bu rafet. nga leen di wax ay cinquante cinquante trois. nee na wax ay cinquante deux cinquante la. ah yàlla dogal nag. nee na yàlla dogal nag. ndeke Cheikh El Hadj Mansour. ndeke Cheikh El Hadj Mansour. fi Serigne Babacar Diar ak Jumaa ji. fi Serigne Babacar Diar ak Jumaa ji. ak yu baax yi ko gëm lool. ak yu baax yi ko gëm lool. gannaaw ba mu fi jógee. gannaaw fi jógee. muy مدي الحاج عبد العزيز اجل الحاج محمد الحبيب من تياس ليغيبي تامبلي واتكو نكي نكي نكي نكي نكي نكي شيخ القوم شيخ القوم سما سري سرينم شيخ الحاج محمد المنصور شيخ الحاج محمد المنصور باي لي سما شوبي نينا بايام لا سوبم لا من بما ووتي نينا موم دد ووتي kuy woote. kuy da ngay da da ngay kuy faral di woote rek léegi tey nga wuute. te mun wuutewul dara mag yi incha na moom day wuutewul dara dara mag yi incha allah. ndekete yoo. ndekete yoo. sama sëriñ sama sëriñ. nee na sëriñam. sama kilifa. kilifaam. mag soppeem. sëriñ Babacar Sy Mansour. sëriñ mooy yàggale jumaa ji nee na lan lañ ciy déggee incha allah moo di Cheikh Al Hadj Mansour moo àggale jumaa ji muy ay mbir yoo xam ne nee na mu nekk ay mbir yoo xam ne dafa yàlla dafa yàlla te yàlla. te yàlla. dàng jamuñu dàng. dàng jamuñu dàng. moo tax ko xool doo ko. moo tax ko xool doo ko gis. da ngay nëbbu. da ngay nëbbu. biir baatuñu yëkkam. ci biir biiru yàlla. mu yëkkati la. mu yëkkati la. zaahir yëpp ci ci bitéem ba moom suñu borom subhaanahu wa taala. nga mën a sëpp yëkkateef yëpp. nga mën a sëpp nag ci nekkateef yëpp. المختار نينا حاج محمد المختار سيسي اك نين ني اند اك نينا اك نين ني اند نين دي سيتو شيخ حاج نينا نين ييب نين سيتو بام شيخ الحاج مالك جامونو دا نيو نينا جامونو دا نيو ني ني نك كل نك تي ني فك بوبو جيم ييب نغي تي بير سوف الارواح الارواح نينا روح بوغي بودي nee na yaram mooy li nga xam ne mooy génn àdduna dem ba décomposé wu jeex tàkk. qawlihi taala minha xalaqnaakum nee na yàlla nee na yàlla moo wax ci alquran ne ci suuf laa leen di bind ci leen laan di ci ci leen ci ci suuf laa leen di delloo waaye ci suuf laa leen di génnewaat itam beneen jamono. te moo di bis bi nga xam ne ci la yàlla di exposé jaam ñëpp. yow bu su boobaa képp ku nekkoon ci biir suuf ak foo mën a nekk da nga jóg wuji woote suñu borom. nee na bis ci bés yi. nee na yàlla mi ngi wax ne. waxul fii nee na yàlla wax na ci alquran na ngeen bàyyi xel bis boo xam ne nee na waxul ban bis la de noonu la ko bàyyi. bis ci bés yi rek bis ci bés yi rek. bis boo xam ne. def na leen denloo ci yàlla. su ko defee nee na su ko defee nag. wax ji daal. wax ji daal. dama ko gudde woon. nee na lu mu nar a gudde kon. mu gàtte. mu gàtte ko foofu. démb dem ci xalifa nee na démb rek la dem ci xalifa bi. ziyaare ji ko. ñun ñi ñoo àndoon ak moom. sëñ Babacar Si di xaritam. di soppeem. sëriñam la. nee na seen ànd dafa yàgg. ba mu nekkee ci faf Cheikh Ndiaye Mabéye ci kër ñun Adja Aram Diène ba mu nekkee ci faf Alaaji Cheikh Ndiaye Mabéye ci kër Adja Soxna Aram Diène te son papa teg mu ci loxo Alaaji Cheikh Ndiaye Mabéye ndax Serigne Mbaye moom si nee na papaam tegoon ko ci loxo Alxaaji Cheikh Ndiaye Mabéye ndax Serigne Mbaye si mon Serigne Babacar Mansour mi fa la nekkoon boobu la ànd ak moom nee na boobu la ànd ak moom sama xarit muy xaritam di soppeem di kenn بكنة بكنة بكنة سلطان منصور دي ولي نانا شيخ الحي منصور دي ولي دي قطبه سيدي شيخ جان ديك وي وري شي موم سيدي شيخ تجان سي المكتوم ديف شي موم وي وري لان جاني 40 سي دي مودجا نانا تي مودجا تي 40 تي مودجا لاكو ديفون ما بعد دي غضب عليك حسودي نانا مونيكو لان موي daf laa bañ iñaane la idma utiita bi mansabin mahmud bi la yàlla joxee cër bii nga xam ne bii dafa sant fa suñu borom yow Baye Mansour yow Baye Mansour la xam nga dam man xat samaat nee na dégg nga am na dégg nga tagg dégg nga xas walam takun yow man waaye nekku la woon benn bis musrin ngay aji dégg déglu waxi lil xaq koo xamante ni kii daf la bañ ba xolam mënatu koo nëbb la muy wax mosoo ko déglu benn yoon da ngay bàyyi mu jàll rek histoire yooyu dañ ko war di fàttaliku di ko waxtaani mun gën a saxal ak mbég gën a saxal jofeel ci suñu diggante ñun ñëpp nee na jaar-jaar yooyu dañoo war di ko fàttali muy gën di saxal cofeel ak mbégte ci suñu xol yi. man ku yàgg a déglu sama lenn ci waxtaan. nee na ku yàgg a déglu lenn ci ay waxtaanam. fu mu waxtaanee tudd sëriñ Cheikh. fu mu waxtaanee dana tudd sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. ay yoon i yoon. ay yoon i yoon. dama ko bëgg. nee na daf koo bëgg. ko sopp sopp ko. dama ko naw daf ko naw. ndax xam-xam ndax xam-xamam. moo tax moo tax. maa ngi tëj léegi incha allah. nee na mi ngi tëj léegi incha allah. ñu gaañu. bi sëriñ Cheikh génnee àdduna. sëriñ Abdou woo ma. sëriñ Abdoul Aziz Al Amin woo ko. ñu jàmmante tuuti. ñu jàmmante tuuti. mu ne xew xew bu rëy bu am de. mu ne ko ah sëriñ bi lay am na lu xew lu rëy lu am. mu ne ko lan la sëriñ bi. mu ne ko lan la sëriñ bi. mu ne ko sa mag. sa xarit. sa xarit. sa soppe. moo fi jógee. moo fi jógee. maa ngi nii la maa ngi nii la maa ngi ci mbir mi. maa ngi fi nii ci mbir mi. سلم بنا سلم بنا كل لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون nee na ndax ñun kenn gënu ci sa borom ñëpp Cheikh El Hadj Malick ba ci ñun ñii nee na mu ngi koy feddali yàlla bu ko kenn jéem a dimbali ci man bopp yàlla bu ko kenn yàlla bu bu kenn jéem a dimbale yàlla ci man boppam allah la gani an alalamin yàlla doylu na walis bi daafoon yëpp ida kan allahu rabbal alamin fa huwa fi bi dalika aydan nee na bu fekkente ne suñu borom subhanahu bu fekkee jëmm yi la ñuy gis waaye moom Cheikh El Hadj Malick mi ngi fi de incha allahu taala ak mag ñu baax ñi moo àndaloon ñëpp incha allahu taala maam Cheikh El Hadj Omar di sëriñam di way juróom ak ñi mu àndaloon fay gudd. dañ ne fay gudd. Chérif Mouhamadul Ghali bu Talib. Cheikh Ibrahima Rayahi التونسي التونسي الدمراوي والدمراوي نم يب نجي الأرواح تبقى لنا روحي ده في دس لا تموت بده ولا تفنى عيد الحار مالك ما يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الله Makhtar nee mi ngi gërëm bi ci turu jamaatu yëpp ci tànk tànk yi sëriñ bi ñëw di yi nga xam ne moom nga toggoo xam na ne sax doo ko nangu waaye daal da nga jàpp ne lu sa tànk yi lu ñu bëgg la lu ñuy dimbale la te yéene nga ñu ko yéene nga ñu sax lu ëpp loolu ñu sant ko. kon mënuñu lu dul sant la. gërëm la gërëm la. dolli la ñaanal yàlla. dolli la ñaanal yàlla. ci suñu ci suñu ci suñu matadi. waaye ci suñu yéene bu kawe. ci suñu yéene bu kawe. yàlla dolli la wér. yàlla dolli la wér. yàlla guddal say fan. yàlla guddal say ba nga continuer di liggéeyal say maam. ba di liggéeyal say maam. nañ ko loo xam ne mosoo dañ di ko def. jumaa ji. jumaa ji. mosuñu ci réeroo ak yow. ay yooni yoon ay yooni yoon seeti naa ko seeti la la sëriñ bi nee na ba mu yàggul rek dimanche ba rek nee na dimanche ba rek ci moom la yendu ci moom la yendu ba añe fa ba añe fa ba jullee fa tàkkusaan door dem jox ma ay xalaatam mu jox ko ay xalaatam jox ma conseil jox ko ay conseil am jox ma lu ëpp mooy ay ñaanam waaye jox ko lu ëpp nag te moo ay ñaanam ndax kenn réeréwul ndax kenn réeréwul ne mën naa ko wax. na mu toggoon mu toggoon tey ak suñu borom yu nee na sa borom nee yu kawe la. waaye nag. waaye nag. ci sa ci sa mbaax. sa woyof ci sa woyof. nga yaatal ñu nga yaatal ñu. xajal ñu xajal ñu. taf ñu ci sa bopp taf ñu ci sa bopp. def ñu sa ay soppe def ñu sa ay soppe. mënuñu sant la mënuñu dul sant la. gërëm la gërëm la. li ma wax keroog ma wax la nga waxaat ma wax keroog nga mooy li nga wax léegi rek. kuy liggéeyal sëriñ Babacar Sy Mansour. kuy liggéeyal sëriñ Babacar Sy Mansour. wala mu jàpp ne moom lay liggéeyal. ne moom lay liggéeyal. yow lay liggéeyal. waaye ku lay liggéeyal. waaye ku lay liggéeyal. sëriñ Babacar Sy Mansour lay liggéeyal. nee na loolu daal la ci mën a wax. ndax lii moom. sa cër la. sa mbir la. sa alal la. sa alal la. ñun ñëpp li ñu gëm. tey moo di Cheikh Al Hadj Malick moo ñëw ci jumaa ji. loolu la gëm ci suñu xol. ne ñun ñëpp moom la ñu gëm moom la ñu gëm kon nag doy na sëkk yàlla yàlla guddal fan wi dolli wér gi nee na technicien yi ñoom Ablaye Ndiaye ak seeni xalaat ak lim nañ leen ba noppi nga dolli leen ñaanal a ah, am na sax ñu teewul dañoo bañoon a woote mu xumb te xam nañ ne yow bëggewuloo ko noonu moo tax ñu yemale ko ci cadre bii rek yónnee message bi ci guddi lañ yónnee message pour wax ñu ko ñu fi nekk ci Tiwaawan pour wax ñu nekk Tiwaawan ñu ñëw teeru la gàttandu la di beral gërëm ak cant na nee na ñu ngi beral ngërëm ak cant sa rakk ju baax ji sa rakk ju baax ji maam Ousmane di sëriñ maam Ousmane Habib ndax man su ma gëstoo ndax moom bu gëstoo gis ko gis ko sama xel dal xelam dafay dal su ma gëstoo su ma gëstoo gis maam Alpha gis maam Alpha sama xel dafay dal su ma gëstoo gis Pape Makhtar gis Pape Makhtar sama xel dafay dal te bañ commencé ba léegi wutewuñ suñu benn ñoom wutewuñ benn jotaay donc donc nag xalifa mi cheikh al xalifa mi nee na sëriñ babacar mouhamadul habib mi di sa di sa rak di sa rak di sa lépp di sa lépp moom itam ñu ngi koy gërëm moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko sant ci jàppandal gi ci jàppandal gi ci yéwénal gi ci yombal gi ci yombal gi nekk kilifa yombul nekk kilifa yombul waaye ñu ngi ciy waaye mu ñu ciy dimbale bu baax a baax ci ba ñu mën a jote ci yow yaatu ci ndax njaboot gi bu ñu xataloon itam donte ci la ñu bokk wala ci la ñu boole suñu bopp nee na jotaay bii riis na wàllu xaqiqa soo ci wax da ngay saf tànk dem fu mu nee na wàllu xaqiqa boo ci wax da ngay dem ba dootoo xam fooy yem xanaa ñu yemale suñu kàddu foofu alhamdulilah ci sant suñu borom subhanahu wa taala. ak nag julli ci yonentam bu tedd bi. sallallahu alayhi wa sallam. nee mi ngi ñuy xamal nag liggéey bi. ba léegi. ba ku fi toll ku fi ñëw danga xam ne liggéey bi am na lu fi des. loolee. ñi ngi dagaan. gannaaw ba ñu gëm sante yàlla. ñaan ko. ñaan suñu mbokk yi te baatu mbokk moo di ak bokk nee na mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ku ci joxe woon itam ci jumaa ji nee na yàlla joxu la bu xañ la tey yàlla nee na daal lii sama may la jëlal wala nga bàyyi bi xëy di xisaab jëlal kenn du la ko régler ëllëg na yàlla di jëflanteeg ay jaamam. na yàlla jëflanteeg rëy na. nee ga dafa sax dàkk. jëflante ga dafa sax dàkk. yàlla amul démb ak tey ak ëllëg. mas naa ci waxtaan ci nee na mas na ci waxtaan ci gàmmu Tiwaawan. maanaam li ñuy wax rek ak léegi goo xam ne dafa sax dappetoo. kon bokk. ñu ngi ñaan mbokk yëpp. kaddu gi dana génn xëy na. kaddu gi dana génn incha allah. nee na lu waay mënati ci liggéey bi rek. ñu def ko te yàlla tax. waxinu te yàlla tax. nee na waxinu te yàlla tax. waxin la rek. waaye nee na defuñu lu dul loo xam ne bii moom yàlla rek a tax. waaw ba. Alxaaji Ablaye Ndiaye ngalgu sëriñ bi nee na jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf sëñ Abdoul Aziz jë Hadj Malick Faye Hadj Malick Faye magam di Abdoul Aziz sëñ bi nee na jërëjëf Malick nee na doomu baayam la ñu ngi ñaan nag kenn ku nekk rek loo mënati rek nee na waxul ñun ñii de àdduna bi yëpp lay waxal. نانا وقت جي دافا جيبي سي لامي ني جامو يالا بو ني واخ شيخ الحاج مالك سي واي يالا لا باي واي نانا سي يالا لا باي كو لومو واخ رك يالا كوكو نانا ديت لومو واخ يالا كوكو واخ امنا لو خامني نيت دوكو بروغرامي واي داف كوي داب واي داف كوي داب جيخ موك لامي نيم جيب مو واخ كادو ماغني تادو نيوم واي يالا ak kàddoom ak sar na ba àgg fu ne mbokk yi jërë ngeen jëf Mame Ousmane Sy sëriñ bi nee na jërëjëf alxaaji Bokar Ndiaye jërëjëf alxaaji Abdou xaaji malik xaaji Malick jërëjëf nee na mi ngi sant ñëpp rek mi ngi gërëm ñëpp nee na mag ñaa ngi ñu teg bët ci mbaaxu yàlla alxaji maxtaar siise sëriñ bi nee na kontaan na nee na kontaan la bu baax nee na su ko defee nag maxtaar kon jërëjëf jërëjëf nee na maxtaar soppeem la nee na ñun ñii xam nañ ci moom dara cant gi nag nee na làmb nañu fi teew ñëpp مودا برور بانكسار كمشتكي مودا وبيت الله فيها ذو اضطراب مودا فيا لله من شام المكين مودا ومال البيت بيت بالاركان حتى مودا يكبر ساجدا مثل الفطين مودا دعا الرهبان الجانا مبين مودنا تتابعت الهواتف للحسين مودنا بها حل الكواكب مشرقات مودنا كما حل الملائك للحسين مودنا وللإيوان والشرفات أمر مودنا شهير والمزلة للقطين مودنا بها نيران فرس الحال برقنا وما للبحر من ماء المعين برقنا بها أن اللعين بها هجوم برقنا ترمت لي شياطين شطون برقنا صل الأصنام هل لكساء برحم برقنا ذو الأوثان في دين الودين مودنا لما في جوفها شعب شعب موطني يطرب كل الذي دين ودين موطني مجايب صار الأسنان ما